laax ko ci anam goo xam ni mën naa indi xàjjaloo ba xëy na tàbbili réew mi euh, ci lu kenn ñaanul ngir waxtaanee solos xeet waaso ak ngaañte gi mën a nekk ci laax ko ci wàll politique bi dañuy dalal Abdou Khadre Gaye euh, ngeen xam ko bu baax njiital euh, ONG EMAD yëngul lool ci wàllu wesaare cosaan ak aada wante itam di ñu delloo démb ci lu bari Abdou Khadre ñu amati mbégte dalal la ci démb ak tey di la bàyyi nga nuyoog auditeurs yi mbégte bi defe naa fii la di la nuyu di nuyu auditeurs yi euh, auditeurs yi démb yëpp di nuyu sa naattango yi ngay liggéeyal ci rajo bi di leen seedaloo encore une fois sama mbégte teew ci émission bi pour waxtaanee thème bu am solo bi di ñaan yàlla rek mu jàppale ñu ba yaakaar bi nga am ba invité ma bañ tas. Mm-hmm. alors Abdou Khadre dañuy wax ne Sénégal dafa am benn richesse mooy euh, xeet yi bari na waaso yi bari na wante ni ñu nekkee boobu ba léegi mu rafet lool ñu gis yeneen réew loola taal ko wuute gi ci wàllu xeet taal na ay réew ndax ay jàppante yu ci am ndax mën nga ñu ñëwaatal ci richesse boobu tey ethnie nekk pour suñu réew mi di Sénégal. waaw jërëjëf euh, Fatia xam nga euh, dafa am benn xam-xam bu mag. mu ne la richesse d'un arbre c'est sa diversité soo ñëwee ci garab gi da nga fay fekk ay reen fekk fa dàtt bi muy tronc bi mu am ay branche am ay car yu gën a sew am ay xob am ay tóortóor am ñent ki nga xamante ne xam-xamam yaatuwul ba bànqaas bi rek la gis dafay foog ne bànqaas bi mën na wéyal boppam hmm. reen bi wéyal boppam dàtt bi wéyal boppam mais garab dootu fa ne donc la riche la diversité c'est un enrichissement xam nga ne lii banqaas la tudd wante ci garab gi la bokk lii reen la tudd wante ci garab gi la bokk waaso yi ci biir réew ak xeet yi ci biir réew ak askan yi ci àddina noonu la demee li tax nag ñu war koo moytu mooy ne loolu yàgg naa indi fitna ci dënd bii ñu bokk muy suuf si Adolf Hitler loolu la tëraloon hmm. le fascisme fondamentalement c'est ça xar àddina def ko ay pàcc mais askan bii ñoo gën askan bi ñi ñoo gën a taaru ñoo gën a njool ñoo ëpp doole ñoom ñooy la euh, la race bénite les autres c'est les sauvages c'est les barbares loolu moo indi le fascisme avec Adolf Hitler mu jël la race aryenne fekk leen ne leen ñoom ñooy la race supérieure ba àddina bi tàkk mu am guerre mondiale mais avant Adolf Hitler tubaab yi ñu weex ñeex ñu ñuul ñi defoon nañ ci xàjj ak seen benn ñu weex ñi ñooy nit dëgg ñu ñuul ñi rabu àll lañu gën a jege te nit kon boog ñu weex ñi mën nañu jël euh, ñu ñuul ñi traité leen nit nit di traité nag wala xar wala fas hmm. moo indi traite négrière tey jii ñun suñ koy xalaat loolu dafay mel ni un rêve on dit comment l'humanité a pu tomber aussi bas te loolu dañ ko théoriser ci ay téere mhm. théoriser ko ba signer ay convention yi wane ne loolu am na tey jii am na ay bindkat yu bëri ci àddina dem nañu ba loolu ñu dugal ko seen bopp ba ñu gëm ko ba di ko bind ba di wane ay firnde ne nit ku ñuul rabu àll la mhm. noonu mu demee diggante nit bu ñuul ak bu weex wala bu jaune ak bu mel nii noonu lay demee ci biir nit ñu ñuul ñi seen biir gënaat la am ci wala ñu weex ñi seen biir gënaat la am ci loolu su amee nag musiba lay doon parce que soo ñëwee ci xeet yi soo ñëwee ci xeet yi day am un ancêtre fondateur ancêtre fondateur boobu ba mooy càllale ba wàcc ñu ne moom mooy jur xeet bii beneen ancêtre fondateur jur xeet bi wante soo leen toppee ñoom ñooñu le am na fu ñu bokkee c' est comme ni Cheikh Anta Diop démontré à la race aryenne la race blanche ne leen ne Afrique nit ku ñuul mooy cosaanu doomu aadama ba suñu maam bi nga xamante ni mooy euh, origine nit ñu nekk ci kaw suuf bi yëpp quelle que soit la couleur de leur peau maam boobu fii ci Afrique la nekkoon te dafa ñuul. donc nit ku ñuul moo jur nit ku weex. nit ku ñuul moo jur nit ku jaune. kon boog soo xoolee différenciation boobu si avec le temps lay am. comme nu ñu waxee ne cosaanu garab gi pepp bi la. olof nee lu guy di rëy rëy rëy giifee ndeyam. giif c'est la graine du baobab. moom la ñuy ji asamaan si taw mu focc di màgg. am ay reen nekk tronc nekk branche nekk xob ba nekk pomme wala banaana wala raisin mais lépp cosaan bi benn la. Mhm. parce que euh, toujours mbir lu mu rëy rëy rëy rëy rëy lu mu lu mu divers divers divers cosaan bi benn la. c'est comme la cellule originelle qui donne naissance à l'être humain qu'on appellera demain le fœtus, mhm. le bébé, le jeune homme, le garçon, le vieillard et le cadavre. c'est processus askan tam noonu la tëddee xeet noonu la tëddee kon boog Sénégal suñu sàgganee ba dugal fi lu mel noonu dañuy juum parce que nag en mille deux cent vingt deux njaajaaj njaay gañe woon na réew mi mu nekk le Grand Jolof muy ancêtre Sénégalu tey bi xeet yëpp daje fa xeet yëpp ñu ne Jolof Meng bi sos Jolof c'est un mandeng séeréer yi ñu nekk Sine Saalum waalo la ñu jógee est-ce que tu vois. Mm-hmm. lébu yi ak séeréer ak ñoom ñëpp dëkk nañu Mauritanie. suñu nee empire du Ghana mooy gànnaar. Mm-hmm. donc si tu remontes le fleuve tu arriveras à la source. et lorsque tu arrives à la source tu sauras que nous sommes un et indivisible un peuple un but une foi. Mm. alors démb ak tey lañu wax naka la mag ñi dundee woon richesse boobu ethnie doon pour Sénégal lébu yi par exemple xam nañu ne euh, kuy nekk ndakaar tey ñoom ñoo la yaatal démb kon mhm. wàllu wuute ci wàllu ci ci ci xeet nekkul woon problème pour mag ñi on suppose bien waaw te jaraaf faala furi ay sa pay mbay jaan ci dem moom ko nettali mhm. dafa waxoon ne dañ ko laaj ne ko kan mooy lébu te ku bëtt àllub kaañ ak si ndakaaru nangu charte bi ñu fi teg mooy ne ñu ñëpp ay nawle lañu kenn du fi buuri kenn lébu nga moo tax jaraaf àndoo ca mbi jëm ne ma Abdou Khader lébu du deret jikko la lébu du deret jikko la jikko ça veut dire c'est une graine qu'on sème un comportement qu'on cultive un pacte qu'on accepte moo tax soo ñëwee ci Lebu yi Masamba Kokki Diop di maamu Serigne Ndakaaru yi tey Kajoor la jógee ñëw Ndakaaru ñu dalal ko mais ko ngoone meng mu jal Diop ñu fal ko Serigne Ndakaaru Taabaan Jool jógee Fuuta ñëw ñu may ko Seyni bu Diop mu jur Eliman Jool ñu fal ko Serigne Ndakaaru ñoxor fay jógee siin ñu dalal ko mbot mooy maamu waa payen yi solu jaraaf kon soo xoolee Masamba Koki origine jolof jolof la nga jël ñoxor ah origine am siin saalum la séeréer la nga jël taaban jool origine jool la sa fuuta kon ana xeet ñoom ñëpp ñu adopté leen ñu doon ay lébu parce que xeet nit day jugee ci xeet bi dem bokk ci xeet bi le mm-hmm. parce que lébu yaay koy def nit soo nekkee saraxule jugee gi di maxa ñëw ndakaaru sëriñ ndakaaru may la doomam hmm? Hmm. Faatumata Jóob nga takk ko jur Aïcha jox ko sa sant buy sant waa gidimaxa di maxa lay doon moom doon doon sutul saraxule hmm. lébu donc xeet yi noonu la ñuy duggante moo tax ñu ne Euh, ràbbante la c'est un tissage comme ni tisserand bi jël jëlee ay wëñ yu bokkul bu ñuul bu weex bu mel ne le bu mel ne le bu mel ne di ko ràbb di ko duggalante ba serbi pare nga xool ko gis couleur yi ni mu ko tegee ak figure yi ni mu ko dessiné nga ne sër bi rafet na bëgg naa ko dinaa ko jënd noonu la askan yi mel noonu la xeet yi mel dañuy xam ne ñoom ñëpp ñoo constitué pour faire ce beau ti là mm-hmm. hein, qui te donne envie. su ñu leen supprimer woon unifier leen rek mbir mm-hmm. am yàlla wax na ko ci alxuraan mm-hmm. mu ne ma sàkk nit ñi mënoon naa leen def benn askan mënoon naa leen def benn xeet mais maa leen tas ñuy ay xeet ñuy ay famille parce que diversité boobu mooy taar bi yàlla moo ko bëggee noonu mais da ngay xam ne diversité bi lu mu yaatu yaatu yaatu soo ko toppee rek tu retournes à l'unité et le un suprême du ma la ko jàngal yaa ngi ko gën a xam <laughs> alors ñu wéyal démb ak tay bii ba léegi Abdou Khadre yegsi nañu nag ci euh, wax ci ngànte gi euh, wala bala ñuy ñëw ci ngànte gi sax yow gis-gis boo am ci tey way politique yi nañu ko bëggee jël def ko euh, genre arme di ko xeexante ci seen biir loola ban jàngat nga ci def yow en tant que ku yëngu ci boole ay xeet ci fàttali mhm. démb ci rafetal ci bëgg nit ñi xëy na retrouver wu ci ci ci li mag ñi doon def démb waaw xam nga Fatou Thiam politique politique kat yi ay tappalekat lañu <laughs> olof yi dañ ko xam ba ku përëm def ko lam hmm. doore ko ci kaw bu mu mel ni oo dañu naan lam bi lami politique la qu'est-ce hmm. que ça veut dafay or or lu de ante or bi ci kaw la ne daf lay <laughs> pël ba dafa toog këram campagne électorale jot moom mooy kilifa village pël boobule su campagne jotee ñëpp dañuy ñëw di ko seet si mu ne jabar ji dinaa la jàngal ne politiciens yëpp ay naafeq lañu mu ne wutal xorom nga xoromal ma suñu ndaal yi xam nga xorom ndox neexul ndaw si xorom ndaal yi pour groupe politique yi di ñëw nag ku ñëw rek mu ne ndaw si ah mais sama xarit bi si ndox bu sedd bu neex bele ndaw si tibb tànk ci ndoxu xorom bi ñëw sukk jox la nga naan xaw a gàññ tuuti mais da wane gàññ bi hmm. mu ne la suñu ndox bi neex na de nga ne ko neex na trop mu delloo dëpp nga dem keneen ñëw mu def noonu mu ne gis nga politiciens yi ndox bi neexul hmm. ndox bi dañ ko xorom te seddul hmm. mais comme que ci campagne la ñu nekk te dañu soxla sama carte lu ma leen wax ñu ne sa daxta beneen bi politiciens yi dañu nekk ci campagne ci caravane seen auto accidenté mais ñu ñëw gisuñu koor yi waa ji ne boo borom be tool bi ne suul naa leen ñoom ñëpp ñu ne ko waaw yow ñi accidenté nga suul leen wax loolu nu mën demee mu ne ah bi ma leen di suul daal am na kenn ku doon wax ne c'est pas mort c'est pas mort c'est pas mort hmm. ah, mu ne la c'est pas mort ba pare nga suul ko mu ne ah xam nga waxi politicien rek <laughs> mën nañ la c'est pas mort ba pare fekk dee nañu bu yàgg hmm. moo tax ma jàpp ne dee nañu rek ma suul leen ça la conception hmm. que l'homme sénégalais se moo tax cinquante trois pour cent yi voté wul ci élection yi am na ay analystes yu wax ne di ont tourné le dos à la classe politique donc globalement dañu perte élection yi li waral ñu perte ko nag nit ñi di leen weddi nanka nank ba safatuñu leen mooy mig mag yu mel nii lépp lu la arrangé nga tàccu lépp lu la arrangé wul nga dugal fa affaire u ethnie affaire u waaso wala affaire yi nga xamante ne taxawul ce n'est pas juste et ce n'est pas sérieux parce que ay président jaar nañ fii Léopold Sédar Senghor c'était un séeréer mm-hmm. tey jii sa maison familiale est devenue un musée mm-hmm. su doon wax nga xam ne kii déggul olof bu mënuloon wax junni ñun di la doon wax mm-hmm. daawul wax fanweeri at ñetti fukki at lay wax wante amoon na intelligence bu koy tax mu effacé loolu topp lignéem ba fu dem ci Sénégal woon leen ne sama maam sàngam fii la jógee parce que ku si ñun am nga maam bu jugee fu ci Sénégal pour ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar woy nañ ko pourquoi maintenant ñu bëgg koo xar ñaar pour des intérêts politiques yi nga xamante ne yow mi ko xar ba mu yóbbu ci pouvoir bi xar ga ko xar moo yàq sa pouvoir parce que ku nekk nag ba nga yoree dëkk ba nga xam ne dafa nekk benn nit ñu juboo su joolaa bi demee Fuuta xam ne moom Fuuta la bokk ah su euh, tukulóor bi demee Casamance xam ne moom Casamance la bokk parce que Aguène et Diambogne l' ancien gouverneur bi ci bind téere nee na ñett la woon kenn ki moo jur séeréer yi kenn ki moo jur joolaa kenn ki moo jur lébu yi et suñuy jëlee euh, kalante boobu kalante boobu nga xamante ne ñenn ñi nee nañu Soundiata Keita moo ko bindoon dans la charte du de Kouroukan Fouga du Mandé hmm. pour jël sant yële wutal ko équivalence fële pour jël sant yi ñu nekk kalu sant yi pour jël xeet yi ñu nekk gàmmu xeet yële c'était pour que loolu bañ exister man su duggee taxi waxaale ma ne waa ji deux mille dal na ma nag dëggantaan waaye hmm. deux mille mu ma noonoo trois mille ñu ko waay deux mille waay mu ne ma trois mille ma ne ko noo sant mu ma faal ma hmm. ne ko waay fële dama buntu bi rek dugg waaw ah? mu ne waaw lii lan ba ne ko hé dawalal yóbbu fu ma jëm fayatuma la sax <laughs> mille mille cinq cent laa lay fay man gay laa sant. Uh-huh. rek mu ree. waaw man fekkee naa xeex boo xam ni. Uh, xeex mhm. la naroon na doon waaye. mbirum mhm. kal moo moo moo désamorcé bomb bi. Mhm. ay kal la ci ay la ñu mujj loolu man personnellement daf ma marqué pour wane ne aussi richesse la. comme tu as vu. te loolu suñuy maamaati maamaati maam ñoo ko créé woon. ñu ne la charte boobu. ah kenn xamul kañ la woon mhm. donc ñooñu nga xamante ne ñooy mag ñi ñooy suñu cosaan nekk quatrième cinquième génération derrière nous mhm. suñu amoon intelligence boobu ba créer cette unité là cette entente cette compréhension tey en deux mille nga am des hommes politiques yu ko bëgg a kas tas c'est parce que xamuñu mhm. c'est parce que xamuñu et soo xoolee le système même soo fekkee ne da da nga jéggi xeet yi dem ci caste yi entente boobu nga fay fekk parce que division yi c'est plusieurs niveaux da nga gis séeréer joolaa wolof mandeng et cetera ci biir wolof ci boppam nga dugg fa fekk géwél géer ñeeño et cetera mais division yooyu dafa war créer benn cohésion benn entente parce que foofu ñu koy xool de façon superficielle dañu gis la division du travail hmm. ñii ñoom ñooy la mémoire hmm. ah ils sont la mémoire de l'histoire du peuple ñii ñoom ñoo yore ñooy gor garab yi ñooy defar euh, ustensiles de cuisine yi ñi c'est les maîtres du fer c'est les forgerons ah ñii et cetera cette division day def ba ku nekk da ngay soxla sa moroom parce que kii defar ay ay xeej ak ay fit ah soxla na kii bay dugub ndax dina lekk dugub mhm. mais kii bay dugub bi soxla na illeer donc ku nekk dangay dépendre ci sa morom hmm? mhm. le guerrier ki fait la guerre ñu ngoy ooye guerre pour défendre la patrie mais soxla na xam naka la maamam guerree woon mhm. hmm? pour technicité boobu mu conserver ko mhm. il a besoin du griot près de lui bés bu ko griot géwél bi tourner la dos il perd sa mémoire historique parce que géwél bi dafay taxaw taxawaayu bibliothèque moom mu taxaw taxawaayu armure buy défendre géwél gi nga koy défendre physiquement son intégrité physique moom muy défendre sa mémoire mm -hmm. mais c'est c'est c'est pas beau. dañuy mottalante daal. ah parce que nit nit ay garabam. Mm-hmm. Hmm? nit nit ay garabam loolu ba ko mag ñi xamee. Mm-hmm. yàgg na donc je pense que tey suñu buggee dugal affaire wu xeet affaire wu waaso euh, dañuy yàq réew mi. Mm-hmm. Il faut aussi ñu am l'intelligence de comprendre une chose Senghor il était aimé par les Sérères parce que si ñoom la bokk. c'était une fierté aussi pour les Sérères de dire que le président de cette république est sorti de notre groupe. Hmm? dara newu ci. mais il avait l'intelligence de couvrir ça d'un voile. nit ñi am l'intelligence de xam ne séeréer tam fierte bi ñuy am ci Senghor nekk président c'est tout à fait normal et naturel olof bi du ci mer mm-hmm. te si tu as un président tukkuleer hmm, les tukkuleer am fierté ci loola mu am fa électorat bu dépassé mm-hmm. parce que ku nekk ci terroir ba nga jógee muy sa sa cosaan dafay nekk sa base électorale mm-hmm. surtout su fekkee ne sa dëkk la tey jii su Sonko kenn mënu ko mere parce que sa base électorale c'est la Casamance il est Joola mais qu'il se sente à l'aise à Dakar et à tout à Touba hmm? ëllëg si on a un président lébu mais les lébu seront fiers du Cap-Vert mm-hmm. hmm? mais dañuy xam ne nag président bi c'est le président d'une république qui se nomme le Sénégal mmh. et Senghor disait que je veux que ce peuple soit un peuple sans couture sans couture mm. c'est-à-dire sans déchirure bu leen ko xotti bu xottee ko bañ koy ñaw ah mais soo leen sàgganee ba xotti ko nag ñëw leen ko te na ñaw bi rafet loolu mooy li Senghor euh, bëggoon euh, Abdou Khadre bañ ngaañte moo mun a nekk ci ñu jël euh, wàllum xeet waaso ethnie def ko arme politique ba tey xëy na waa Casamance jàpp ne actuelle président bi bëggu leen wala ki fiy ñëw waa Kaolack jàpp ni bëggu leen wala wala wala lan moo ci mën a am comme conséquence bu ñu sukkandikoo ci li am ci yeneen i réew. waaw conséquence bi euh, c'est la déchirure c'est la déchirure et la déchirure entraîne la guerre su amee entre des ennemis dans un peuple gis nañu gis nañu ko à travers le monde ah li mu am comme conséquence. guerre civile askan bu nekk gàddu sa jaasi. ñuy def la chasse à telle ethnie la chasse à tel groupe ethnique parce que tooñ na suñu groupe ethnique mm-hmm. foofu ça veut dire que la nation s'est fracturée ya la nation n'existe plus mm-hmm. groupe ethnique yi dañu jël place aux nations yi mm-hmm. maintenant si les groupes ethniques du Sénégal prennent la place de la nation on aura à la place de la nation sénégalaise combien de nations autant de nations que d'ethnies que nous avons dans ce, pays. Mhm. Les tout couleurs vont se regrouper entre eux. Mhm. Les Lébou Soudéou Senbir, Diola Soudéou, etc., etc. Et chacun réclamera la primeur sur les autres. Mm -hmm. Ce sera la catastrophe, ce sera la fin du Sénégal. Mhm. alors naka lañu ñu a def ba yegg ci ku nekk di di di mun a identifier wu rek ne man sénégalais laa maanaam tugulóor bi gis boppam ci séeréer bi séeréer bi gis boppam ci joolaa bi ainsi de suite. naka il faut qu'on éduque ce peuple. Hmm. il faut qu'on éduque ce peuple. mais la démocratie est un système aussi dangereux. parce que la démocratie c'est la droit à l'expression la droit à la parole n'importe qui peut se réclamer de mais attends lu ne dafa am ña ko xam ak ña ko moom. ku jàngul docteur am na léeg-léeg nga dégg ne am na waaju xarafal benn xale def erreur déggoon naa ko dans la presse day jàpp ko yóbbu ko tribunal pourquoi ñu jàpp ko mais am na droit yëpp mais il n'a pas le droit d'exercer un métier qu'il ne connaît pas mm. en ce moment il devient un danger mais dans ce pays on permet à des gens qui ne sont pas pharmaciens de vendre des médicaments. Mm-hmm. Hmm? on prend bon, on permet à tout le monde d'être journaliste et de donner l'information Facebook laa ko gisee fekk ku ko bind Facebook xamul dafa doon bobbali rek <laughs> il passe son temps il dit du n'importe quoi mm-hmm. une parole fâcheuse qui entraîne la guerre mm-hmm. tàmbali woon na sax d'ailleurs ak euh, ñi doon dal ci kaw kilifa diine yi ba xëy na. voilà <laughs> ah, euh, ak tiijaan tàmbali woon di am. dafa dem ba euh, dama bàyyi sax xoolatuma Facebook effectivement. xoolatuma Facebook parce que j'étais tellement mécontent et fâché contre cette pratique là. Mm. xaw ma lu mel ni rôle et tu te compte à l'époque ba léegi sax mu ngi fii mm-hmm. que ay kilifa politique ñoo koy utiliser. parce que Serigne bi neexuma rek il a dit quelque chose qui ne me plaît pas il a pris mm-hmm. une position qui sa parole ne vaut rien mm. mais en le détruisant tu détruis une digue qui protège ce pays-là. Mhm. parce que nit ki mën na juum fii c'est un mauvais chauffeur il a fait une erreur dans la circulation qui a failli coûter la vie à quelqu'un mais c'est un bon chirurgien aussi. Mhm. comment tu vas le juger léegi à cause du bon chirurgien qu'il est <laughs> tu peux excuser le piètre chauffeur. Mhm. Hmm? mais mesure boobu cette balance arrahman alamal quran xalaqal insaan alamahul bayaan l'équilibre de la balance loolu la yàlla digal ci alquran mm-hmm. maam tam loolu la ñu digaloon faites en sorte que la balance soit en équilibre bu dara ëpp la mesure mm. elle est importante mais fu nekk nii on n'a plus le sens de la mesure on n'a plus le sens du discours ku nekk day ñëw di jëmale booram ku nekk day ñor di jëmale booram tant que ça t'arrange tu casses tu détruis mais li nga tufli bu jëm kaw sa kaw lay sotteeku mhm. les conséquences viendront demain et demain ce sera trop tard c'est le boomerang soo ko sàmmee si yow lay dellu si c'est la c'est le sens de la forêt sacrée mhm. maam yi dañ doon gis désert bi di ñëw ñu xam ne désert bi bunt bii la mën a jaar ñu jëmm fa garab yu bari daal ne bés boo leen goree garab yi musiba tuuru seen kaw mu nekk un mythe ne musiba bi jinne bi la wala crocodile bi la wala la mais c'est le désert nga ñëw góor garab bi ne waaye góor naa garab dara jotuma keneen am fit ñëw góor garab keneen ñëw góor garab àll bi jeex désert bi tuuru seen ko la maam waxoon dikk na mag mat na ba cim réew mais quand on donne la parole à n'importe qui quand dans une république n'importe qui peut être député, ministre, sans considération. N'importe qui peut être maire, président. Nous sommes en démocratie. Nous sommes tous égaux. C'est pas vrai. Hmm. Ah oui. àndaloo ci attends c'est pas vrai yemuñu. nous sommes tous égaux en tant qu'électeurs. Mm. Hmm? Ah. Eh, nous sommes pas d'égale dignité à tous les niveaux. du point de vue de la technicité journalistique mais attends duma yow doo sama morom acca maa la mag foofu mais naa nangu ne doo sama morom foofu su loolu jotee naa la ba yi nga jiite yaa ko xam su ñuy fal député aussi wala ay sénateur war nañu xam quel est le profil voilà sinon les les affairistes ñooy occuper poste yi c'est ça qui arrive à notre pays les hommes d'affaires ñoo gis ne attends la politique maintenant ça paye mm-hmm. parce que tu as un budget de milliards on ne te contrôle pas et cetera patati patata nga dem drainer des foules parce que tu as des moyens mais tu deviens le maire mais ce objectif ce n'est pas pour régler les problèmes des populations mais, mais c'est pour utiliser le budget tu vois un peu ce que ça donne comme mm-hmm. résultat alors que y a des profils si lépp dafa am profil pour être président de la république n'importe qui ne peut pas être président de la république je suis d'accord en tout cas su doon man la n'importe qui du mën a ñëw hmm. duñ du ma la laaj parrainage kese duñ la laaj parrainage kese dañu def enquête de moralité attends soyons sérieux hmm. duñu xaal xool casier judiciaire bi kese duñ fa yem kese hmm. Senghor bu gis naa dégg benn témoignage il devait nommer son gouvernement ah le professeur Souleymane Bachir je crois si je ne me trompe moo ko doon nettali après mu nekk Popenguine quoi il était en retraite parce que moom su doon nommé gouvernement les gens n'étaient pas au courant. Mm. même gouvernement bi du ñu xam ne président mu ngi préparé da koy def dans le plus grand secret il était très discret comme waaw. donc muy waxtaan ak moom quoi mu ne ko pare naa gouvernement bi mais benn profil moo ma dese. Mm. waa ji je l'ai retenu j'ai vu j'ai regardé na. Curcison et tout, mais il a répudié deux fois hmm. sa femme. Mmh. ki ki muy sëyal léegi nii mooy troisième jabaram. yegg na ba foofu. waaw mu ne bon moom xelam mooy ki ku munul téye jabar est-ce que war na mën a diriger état. <laughs> Hmm. comme le Sénégal a régressé du point de vue de l'éthique hmm. de la morale. du choix des hommes nit dañ koy defar. nit dañ koy defar mais ku defarul doo ko dénk. Sëriñ Dakar am na benn Sëriñ Dakar bu ñu rejeté am na sax ku ñu rejeté parce que dafa ñaaw trop. ah oui ah ne non non non non kii il est àgg nañu àggoon àggoon nañu foofu d'accord ma ci boobu. Mm-hmm. ah ci mais pour dire que euh, dañuy tànn iliman dañ koy tànn. Mm-hmm. su fekkente ne maax yow ñoo euh, ñoo yem neexaay maitrise maîtrise u alxuraan mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Eh, après dañuy xool neexaayu baat bi mm-hmm. hmm? dañuy dem ba xool sax kan moo gën a kan moo gën a leer kanam kan moo gën a lewet kan moo gën a généreux kan moo gën a mën a saafonte ak nit ñi pour départager leen dañuy àgg foofu on pourrait dire quelque part que imam bii il est trop sévère quoi kanam moom dafa ko fas bon nit ñi dañ koy ragal bon et et tout <laughs> yooyu yëpp nit mën nañ ko xool mais léegi bon xam nga la démocratie c'est l'égalité égalité bi nag dañ koy bëgg a yóbbu fépp suñ ko yóbbu fépp nag bon jëlaani bon ne xaaral ma jaay médicament voilà. bon kële ne banque naa trop bon mus naa fekkee benn docteur mu jongal benn xale xaaral ma wax ne docteur laa jongal xale yi mm-hmm. et ku nekk jël profession wu sa morom bon jëlaani xëy suba rek ne xaaral bi sama organe de presse. Mm-hmm. bon Cheikh Omar dégg na tubaab mën na bind bon Samba Ndiaye bon c'est un bon orateur bon ma jël leen comme journaliste. Hmm? et ñu ils diront des conneries ils vont déchirer pays. Mmh. leneen li mun a xotti réew mi Abdou Khadre bu weesoo politique yi itam wàllum xeet am na ci ñoo xam ne dañu jàpp ne ñoo gën ñi ci des donte euh, euh, d'accord nañu ci ne xëy na ñëpp yemuñu mais nag ci wàll woowu quand même euh, y a des abus des euh, du ma may diw sama doom ndax lii la euh, loola itam mu ngi def ay jëyee ci réew mi. waaw mu ngi jëf parce que xam nga dafa am aada yi nga xamante ne. Mm. day dem ba la valeur morale bi mu ëmb nit ñi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy yàq voilà nit ñi dañuy dem ba dootuñu ko comprendre ñu def ko yeneen interprétation Saint-Exupéry disait que euh, bëgg naa nit def sa métier bàyyi parce que quand l'héritage de cette technicité-là se transmet de génération en génération cette famille atteindra l'excellence hmm? sa papa su defee métier bi papam doon def yow nga def ñëw def sa métier papa am doom mu def sa métier day dem ba famille bi si boppam ñooy am euh, division du travail bi ñu organisé woon dans nos sociétés traditionnelles noonu la demee woon parce que mu ne am na secret yi nekk ci métier bi kenn du la ko jàngal théoriquement c'est des réflexes c'est des intuitions hmm? c'est comme le bijoutier qui qui travaille le fer ou l'or am na yenn yi nga xamante ne dooma bi juddu nekk ci mbaar bi di fo di xool papa muy liggéey noonu la koy transmettre cet héritage là e donc loolu taxoon ñu ne nañ nañ séente seen biir pour mieux exceller dans cette pratique et pour mieux cultiver cette technicité la mm-hmm. c'est une force c'est une interprétation que je donne comme ça au hasard mm-hmm. parce que dégg naa Saint-Exupéry wax loolu dans la citadelle dégg naa aussi yontu yàlla Mohamed benn waay bu doon def euh, coupeur de route di def n'importe quoi tuub ci islam bi ñëw bon euh, mu ne ko lu mën mu war a def maintenant wut beneen métier. Hmm. waa ne ko mënul dara mu ne ko sa papa lan la doon def. Hmm. mu wax ko métier papa mu ne ko demal def li sa papa doon def parce que moo gën yomb ci yow. Hmm. waaw ndax dina ci am déjà. Ah, ah, fa la juddoo fa la xam. un Rose mooy sa baay. ok mën nga tëgg. lu mu bon <laughs> mën nga dara waaw soo soo soo demee tëgg di nga ci réussir. Hmm? Mhm. donc euh, Mansour Mansour Mbaye pourquoi mu mën nekk un bon euh, nu animateur de télé. Mhm. parce qu'il l'a dans le sang. Mhm. je vois beaucoup de fils ay nga xam ne seen papa ñoo doon géwél yu mag yi yu mag yi ils sont dans les télévisions parce que loolu day yomb si ñoom. effectivement waaw ah, ils ont détiennent naturellement l'art de la parole l'art du discours et tout et maintenant mooy li tax nit ki di bañ peut-être doomam. su fekkee ne mu conserver métier bi moo tax mooy li tax yow sa doom bëgg a def benn métier nga ne ko bul def métier boobu ça arrive hein mm-hmm. pas parce que da nga bañ métier bi mais tu sens fii la gën a am potentiel waaw ah, suñ ko jëlee noonu rek dafay simple mm-hmm. mais su fekkente ne mbañeel bi nag dafa tegu ci deret ak yeneen mm-hmm. bon là ça ça jeune la république et la nation que nous constituons donc yooyu dañ ko war a éviter gënante bi daal gënante bi ci exercice yi la waaw gën gënante bi ci jikko yi la. surtout. ah oui nañ ko nangu nag. Mm-hmm. diw moo gën jikko diw. dafa am attends soyons sérieux mm-hmm. waaw soyons sérieux diw moo gën jikko diw. jigéen bii jigéen bu respecté boppam la. Mm-hmm. bu respecté jëkkëram la. bu respecté et cetera. bu toog këram bu yar ay doomam buy def nii jigéen bi elle est frivole. elle fait du n'importe quoi dans la rue avec quiconque dans la rue ñu bëgg na ñoo yem yemuñu mm-hmm. je suis pas d'accord ah un bon il fait du n'importe quoi avec les femmes fu mu romb jigéen euh, euh, et cetera du n'importe quoi xëy suba ñëw nekk sur la place publique pour être une autorité de la République ça peut être dangereux on connaît l'histoire de certains présidents dans ce pays les histoires secrètes des présidents de la République mm-hmm. qui utilisent quoi pour satisfaire leur instinct et cetera et Parce que le pouvoir aussi, ça rayonne, ça illumine, ça, ça, ça attire, ça permet de cacher les travers, hein? ça permet de faire des choses impunément. Hein? donc wax naa la que Lébu yi kër mais am na keneen ki nga xam ne gars yi ko kii góor gi ñëw daan ne attends non non kii nga xamante ne ci nekk ci penc mi rek toog yor gerte caafam di yey jànq bu la bu ko romb mu laaj la foo jugee woon ak eh, sa rob bi rafet na kenn du ko fi fal jaraaf. Hmm. waaw bon on peut dire que c'est archaïque. waaw du ko newoon jigéen ña na tànn nañ tànn. <laughs> tànn ilimaan. Hmm. waaw jigéen ñi dañoo wartaan tànn ilimaan gars yi wax nañ ko. ginnaaw ilimaan bu ñu ne kooku ne moo baax. Hmm. kookoo baax wante nag li tax mu dangereux mooy ne suñ leen bàyyee ñu tànn mën naam kenn du baax. Hmm? donc euh, je pense que gënante bi. Euh, war nañ ko traité comme li président doon def keroog. c'est un peu c'est la journée de l'excellence. c'était pour primer les meilleurs élèves n'est-ce pas du Sénégal. Hmm? la cérémonie d'avant-hier au Grand Théâtre je crois. effectivement c'était c'était pour primer les meilleurs. concours général. ah kon kon gënante am na. Hmm. di les meilleurs lañ doon primer. est-ce que dañu primer ñëpp. est-ce que mën nañu puisque gënante amul bu ñu primé kenn quoi non xam nga suñu primé ñii bàyyi ñii day indi frustration et cetera il faut que les meilleurs soient primés mm. su fekkente ne les meilleurs à l'école sont primés les meilleurs au foyer aussi peuvent être primés mm-hmm. hmm? Mm-hmm. les meilleurs au foyer les meilleurs citoyens les citoyens modèles mm. qui respectent la République et ses armoiries et ses institutions qui ont un bon comportement et cetera et cetera et bu mu nekk nag outil pour faire dans la dénonciation boobu moo baaxul. Mhm. mën nañu primer les meilleurs mais bu ñu xas. Mhm. bu meilleurs yi di xaste. Mhm. foofu la yàqoo. ji sargal leen. ñu yées yedda leen ci biir néeg bi. waaw ah, mais bu leen xas ci penc bi. xam nga mosoo gis ñu ne bon dañuy def benn concours pour ñuy élèves yi jël ndaare yëpp ñu dajale leen xas leen <laughs> ku ko organiser ñu ne la la là tu tombes dans un travers dangereux nañ sargal ñi ñu maandu ci ñi yées waaw buñ leen xas mais su dee c'est le gàmmu de mot nag ah ñoom lañ daan xaste ji mm. gàmmu ku fi ñaaw de mm-hmm. c'était ça Ouais. C'était pour faire le bilan comportemental de la communauté lébu. woy ba koy ubbi nag ñu ne gi gàmm ku fi ñaaw de ku fi rafet maa la jur ci sama biir ku fi ñaaw de mooy ku fi def lu ñaaw ci at bi dinañ la xas. tey nga de tey dinañ la xaxar c'était les xaxar traditionnel c'était à ça que ça servait. Mhm. xam nga xaxaar mooy lan. waaw voilà les xaxar traditionnels c'était des chants yi nga xamante ne mhm. dañu doon attaquer ki ci ci intégrité physique am ci intégrité morale am. Mhm. mais xaxar boobu dafa doon tax ba nit ñi dangay ragal ragal xaxar bi ba day tax nga moytu nga moytu ba di nga dem bay def leen nga ne ko su siiwee nag ba nit yee yëg ko ba fental ma ko koy mm-hmm. naka laay def mu tax nga moytu ko. Mm-hmm. c'est une façon de pousser les gens vers le droit chemin mm-hmm. mais bu ci nekk rek am na travers am am na excès alors alamahul bayaan alors euh, est-ce que malgré nag euh, li ñuy tiit yépp ndax euh, ba léegi mënees naa jàpp ne jeexagul ngeen ñi ñu ngi glissé boobu ba tey si boobu terrain ethnicisation de la politique malgré tiitaange yi ñu ci am yépp yaakaar nga ni l'espoir est permis et que peut-être y a feu comme ni ñu koy waxee mag ñi bàyyi nañ fi ay fondement yu dëgër yoo xam ni peut-être caaxaan daaneelu ko. waaw fondement yi nag mu ngi yëngatu. Hmm. y a feu c'est vrai mais y des étincelles bon gars yi nee nañ dëkk bu am gaz <laughs> kenn du fa taal almet bon maintenant on a du gaz dans ce pays bon il des intérêts à l'échelle internationale qui arrivent parce que alal ak koob dafay wootal nit ku bon su Afrique amuloon alal kenn du ko coloniser mhm. parce qu'on avait de l'or il y avait tout ce l'Europe avait besoin loolu moo leen attiré ba tey aussi moo leen fi bàyyi c'est pas pour nous aider ou pour nous accompagner mais tout simplement parce qu'ils ont des intérêts les états n'ont pas de sentiments mm-hmm. les états n'ont pas d'amis les états n'ont que des intérêts parce que état du nit amul xol état amul xol état amul xol état amul yuur état amul âme ah c'est un monstre froid et donc puisque maintenant yàlla def nañu bokk ci pays yu am koom yooyu le ah koom yooyu nga xam ne ñëpp la ñëpp ko soxla ku denc si sa kër li ñëpp soxla wutal gardien yu baax hmm. ah surveiller sa famille yëpp leen xam nga rarement ngi gis ne ñu ne gang bi tëj nañu toj nañu këru këru benn waay bu dëkk Rebeuss wala kaay findiw wala këru Abdou Khader Gueye hmm. duñ ko toj soxla soxlawuñ ko parce que Abdou Khader amul ko fort bon télévision bi mu am léegi kenn bëggatu ko bon télé bi télé Mathusalem la et cetera kenn du toj këram mais ku am coffre-fort am du bon matériel du beau matériel bon faut nga aar sa kër. aujourd'hui le Sénégal a du matériel convoité une richesse bu ñëpp bëgg. su ko defee nag Sénégal dañu war a gën seet suñu bopp gën a aar suñu bopp. ah parce que loolu mun na nekk loo xam ni ay noonu dañ ciy jaar pour yëngal. ah oui oui oui oui oui am na ka nga xamante ne pour jot pouvoir bi euh, pour jot ci pétrole bi mais dina financer nit. Hmm. Abdou Khader est-ce que tu penses que mën nga fi jëlee Macky parce que il a signé contrat avec tel autre film bon je veux ce contrat su ma la joxee financé la dans cinq ans tu le renverses tu prends le pouvoir le contrat c'est quoi mooy ne soo jëlee pouvoir bi tu arrêtes avec l'autre tu viens avec moi ñu financer le gang la hmm. les groupes terroristes dans un pays am xam ne c'est le terrorisme islamique le terrorisme idéologique mais am na le terrorisme économique. Hmm. dañuy ñëw taal dëkk bi créer fa fitna tout simplement parce que ils veulent mettre leur main sur les richesses du pays nous devons faire attention et nos hommes politiques doivent faire preuve de prudence dans leur discours hein euh, dans leur comportement et suñu mënoon def àgg fi Senghor euh, ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ce serait mieux mm-hmm. ou dinañu mën toog ci seen i euh, seen intérêt ak seeni i sentiment autour d'une table pour se concerter hmm. parce qu'en vérité ils ne sont pas des amis ils sont tous là pour le Sénégal il y a des moments où mënuñu def compétition xëccoo kan moo jël raay bi mais il y a des moments ils doivent se concerter pour l'intérêt supérieur du Sénégal xam ne Sénégal mu ngi nekk à la croisée des chemins hmm. lan la ñu war a moytu charte de bonne conduite au fait de la politique on fait de l'adversité mais lan la ñuy tere que ñun ñëpp kenn amul droit def ko nu ñu ko constituer charte boobu wala. loolu yaakaar nga suñu politique yi egg fa. mais war nañ suñ fa àggul ça veut dire que il ne mérite pas de nous diriger hmm. non c'est ça c'est-à-dire suñu àggul foofu te il ne mérite pas de nous diriger parce que du yow ils doivent comprendre que je te l'avais une fois hmm. Dieu ne que pour mieux te faire tomber. Hmm. qui que tu sois professeur Assane moo ko wax lu coow li bëri bëri selaw dina ñëw ne ko dandeex woon na kilifa gu rëy am jëmm taaru jongama ak fasu naaru góor lépp dina wees dina wees le pouvoir appartient à exclusivement et moom rek moo koy yore te du ko wocc ba Lamine Gueye faatoo ñu koy rob bétuwaar Baye Abdou Aziz si def na fa discours ba nga xamante ne rajo yëpp dañ ko war di teg saa jox par bi gars yi ne leen Lamine Gueye ngi nii tëdd ana état si mhm. ana compte bancaire bi ana président assemblée nationale yi fekk xalifu Sénégal yëpp ngi toog mu ne yéen ñi fi taxaw ni yëpp kan moo mun bopp mën dara ci Lamine Gueye tey ñëpp ne selaw kenn tontuwul ne leen lii mooy dëgg mais loolu ku ko xool war nga mun concerté wu xam ne tu passeras et des mooy sa wëy ton histoire que les gens vont raconter. Mhm. ah moom di ko woyof la woon moom di ko baax la woon ah moom di ko mënoon fàtte boppam la moom amuloon orgueil parce que ba waxtaan jotee nangu na wàcc waxtaan si. moo tax Ablaye Wade il avait la grandeur man loolu dama ko ci respecté bu baax a baax. bu mu nekkee ci digg opposition bi. il lui arrivé de waxtaan ak militants yi de muy jàpp lu ñu génn ne nous avons parlé de tout. Mm-hmm. li gënoon ji man li ma gënoon jaaxal nag mooy Abdou Diouf di voyager mu gunge ko ba ci buntu palais bi ubbil ko buntu oto bi. <laughs> militants yi di bëgg a rey seen bopp. <laughs> militants yi di bëgg a seen bopp. mu am benn soirée bu amoon xaw ma fan Abdou Diouf yëpp yónni ko mu dem ubbi baal bi ak madame Elisabeth Diouf <laughs> c'est-à-dire c'est-à-dire c'est euh, ça la grandeur de l'homme mm. des fois nga teg sa sa sa orgueil ci suuf. bon moo tax il était sincère et naturel dans le discours moo tax mu doon def yenn erreur de discours yi parce que moom yoonam ne wu ci. Mhm. il n'était pas eh, kii que que que donc humilité boobu war nañ ko mën toog autour d'une table mhm. daan ne ñun acteurs politiques yi lan la teree suñu bopp. ñu ne waa lu xeex bi métti métti lu campagne bi tar tar tar tar tar ñu waaso yilu du xeex mhm. nañ ko éviter. Hmm? ku ko def si ñun. bu buñ ko souligné bu ko adversaire bi sax souligné ne bàyyi ba ñu dajewaat ci table bi ngeen sanctionné ma gene waaw hmm. erreur boobu sax ku ko def bu ko sa morom euh, exploité lan la ñu warul wax gene waruñu wax ci lii waaw affaire affaire jigéen affaire sexe affaire yooyu ñu ko teg ci suuf bu kenn utiliser arme bu mel noonu contre sa adversaire hmm. parce que nga utiliser ko mën nga détruire sa adversaire mm. mais en détruisant ton adversaire tu détruis tes enfants tes fils tes propres fils loolu bor ku ñu war a yor yow da nga koy xam mm-hmm. Saint-Exupéry waxoon na ko roi bi ñëw ci beneen roi moromu roi am ñoo bokk frontière mu yónni ay ambassadeur am ñu ñëw ne ko suñu buur moo ñu yónni nee na tawul dëkk ba il a dix dix mille têtes de bétail à dafa bëggoon nga ubbil ko sa frontière pour que ces bergers mën a ñëw nag yi mën a lekk mu ne ko may moom a xalaat du suba mu dem waxtaan ay ministre am mu ne ko ki berger berger mi ay saay-saay la ñu de seen jikko rafetul hmm. seen wax rafetul seen doxalin rafetul suñ leen bàyyi ñu dugg ci dëkk bi def fi at dinañ fi bàyyi jikko yu ñaaw hmm. ñu yàq xale yi le lendemain mu o émissaire bi ne ko nga ne lu sa buur wax mu ne il a dix mille têtes de affaire à mu ne ko soo demee nga ne ko j'ai dix mille enfants à éduquer hmm. et bëgguma sa jikko sàmm yi yàq samay xale hmm. kon maa bañ du ma ubbil sama buntu réew et c'est la guerre qui a tranché le débat hmm. loolu mooy kilifa da xam jëfu tey bi lan la lay yàqal ëllëg. moom tànd ko lan lay yàqal réew mi ëllëg nga moytu ko. léegi le peuple hmm. dans tout ça askan wi su politique yi di exploiter fibre bu sensible boobu ban attitude lañ war a am. non mais bi fu mu nekk nii ils sont à l'image des hommes politiques hein. ñëpp parce que ñun ñëpp ay jaasi lañu léegi ah. <laughs> kii jaasu Ousmane Sonko la kele jaasi Macky Sall la kii jaasi euh, Ablaye Wade la kii jaasi Khalifa Sall la. et ñun ñëpp ñu ngi si xanaa gisoo dëkk bi léegi épée champ de bataille la. Mm-hmm. ak Facebook ku nekk yor sa épée. Mm-hmm. kenn waxatul benn kii pour pour le loisir. Mm-hmm. le Facebook c'était soit pour le loisir soit pour l'éducation soit pour l'information léegi politique bi daf ko nangu ba gars daw nañu. ñun Emad dañ doon dugg di wax ay Yaxara Dem ay Badara Mbaye Kaba ah, di dugg ay photo yi gis ngeen maire yi ni ñu meloon gis ngeen paa yooyu moo am débat léegi. même yeneen sites yu am intéressant Sénégal yëpp tëj ñu même Sénégal métis tëj et ma penc na parce que les gens ne regardent pas ils passent leur temps à défendre le leader politique hmm. et à détruire les autres leaders politiques le Sénégal est devenu un champ de bataille hein ah c'est devenu un champ de bataille dangereux pour le peuple boobu c'est même plus grave pour l'ethnicisme parce que en fait day gindi le clanisme hmm. ce n'est plus l'ethnie mais c'est le clan hmm. le gang de Sonko ce n'est des militants hein c'est des gangs Carrément, oui, oui. Le militantisme, c'est l'idéologie, c'est le développement du pays. mais fi ay intérêt la bés bu ñu jëlee nguur gi vous allez voir. <laughs> ñoo jël seen hmm. nangu seen kër yi nangu seen jabar yi ah, nangu seen école doom yi yóbbu suñu doom et cetera et cetera on va prendre votre place c'est ça hein léegi hmm, ñu ñooy nekk président ñooy sol costume yu rafet yi. et cetera. On va prendre parce que, mais Boussouga a dit génne sa place, qu'est-ce qu'il va faire de moi hmm. C'est Sénégal. sax moo gën a garaaw problème ethnie. attends moo gën a garaaw problème ethnie c' est des clans. c' est comme ay ñoom Al Capone nax ñoom John Dillinger <laughs> c' est des moo tax ils ne se font pas de amul amul amul baal. Hmm. on lèche on détruit Pape Diop àndal si ñun. Si Pape Diop avait dit je vais rejoindre le groupe de Yewwi alalala ah on le porte en triomphe taalal ko cuuraay yi xalamal ko ah woy ko ne moo gën ñëpp mais puisqu'il n'a pas choisi notre camp bon yàqal nañu majorité bi dem na ci camp Macky moom on sort moo fi waxoon lii moo fi defoon lii dafa gàtt trop. il est tellement noir. Hmm. tuddul sax Pape Diop. waaw et yaayam papam et cetera. <laughs> c'est caricatural mais c'est ça la réalité malheureusement. dans ce pays. Et tu as peur. Parce que quand les, les groupes politiques deviennent des gangs, mm. il y a de quoi avoir peur. C'était comme au temps de Harlem avec les nga quartier il y a a un gang leader mooy patron bi. Mm-hmm. lu mu bëgg moo fi am bon moom la ñu tuddee mafia. Mm-hmm. léegi am na sax ñu tuddee seen bopp mafia aussi je crois dans les groupes politiques. Ah, ah, ah, c'est pas innocent hein c'est les mafias italiens. Mm-hmm. oui mais les de la drogue ñu di devant rien ils font tout bon loolu la ñuy def. waaw mais ça sonne bizarre. que ñu choisir ce nom esprit e daal moo fi ah, mm. mm. euh, bon puisque on dit que fu ñu dajee naka la ñuy def ñan ñoo ñan ñoo ñan ñoo ñan ñoo bokk ñan ñoo bokk. Mm. ñu dajee kay gay gay bi politiquement fan la bokk. gay mm-hmm. bi non c' est un c' est un patriote. non gay. <laughs> et on commence fu bokk. non Guèye Guèye bi il bien ah Guèye politiquement aussi la dootuñu xool bien dañu naan politiquement fin. Mm-hmm. le cas kii il est avec le président Macky président kii mooy. attends voilà c' est comme ça que raisonnent les gangs est ce que la bokk. waaw mm-hmm. ah, cest su dee suñu gang la bokk. c' est mon ami dépassé nañu problème ethnie waaw. ah oui dépassé nañ ko romb nañ ko mm-hmm. dañ utiliser rek quand les intéresse mais dépassé nañ ko mais tu n'as pas vu cette haine qui charrie dans le discours politique. ce n'est plus de l'adversité hein discours Ablaye Wade Ablaye Wade Abdou Diouf bon il se lancé des flèches des fois mu tàng mhm. mais du doon dépassé benn limite bi Ablaye Wade il n'a jamais parlé d'un adversaire politique même si tu es contre lui mhm. Ablaye Wade il n'a jamais attaqué un artiste musuma ko dégg moom am na ay Abdou Coon euh, Seck woy na Abdou Diouf et tout mais les Ablaye ses militants toppatoo wuñu loolu Ils lui reconnaissaient le droit là. Il y bu des marabouts qui étaient avec le pouvoir, qui ont donné ay ndigal contre Ablaye Wade. Pour Abdou Diouf musuma dégg mu attaqué leen honnêtement à ma connaissance. mais maintenant pourquoi artiste bu woy adversaire bi nga attaqué artiste bi. Hmm? pourquoi marabu bu ànd ak sa adversaire nga attaqué ko alors amu fi woon xamuñu loolu. sëñ Abdoulaye joxe na ndigal ku woteelul Abdou Diouf war na sëñ problème yu ndaw la jur mais pas des guerres politiciens ça avait frustré les gens mais on reconnaissait sa stature et sa position et on disait que kii waru ko wax lu ñaaw c'était l'unanimité au Sénégal hum mais léegi ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas on permet à personne bon tu es bon quand tu es avec moi tu es mauvais même waa waa bu ñuy ànd ak président tam mais même ah, comportement bi la ñu am ah. raisonnement la ñu hmm. kii kan la kan naa dal Macky Sall kon de suñu waay la <laughs> lu mu ñaaw ñaaw ñaaw nañ ko Macky non il est beau hmm. lu mu mënti def il est beau parce qu'il est avec nous waaw hmm. c'est pas ça wax nga wax nga wax ji yëpp macha allah ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte vraiment dalal la ci émission démb ak tay bi euh, gis ne euh, ethnie mun na nekk richesse mais aussi mun na nekk source de problème comme ni mu ko tàmbalee woon nekk mais mhm. won nga ñu itam ne léegi dépassé lañ sax foofu am na lu ko gën a garaaw ñu war ci aussi bàyyi xel yaakaar ne émission bi dina ginde ñu bari ba xëy mhm. na la ñuy seen muy ñëw tey ñaan mu bañ a agsi ñu mun koo gàttandu ba du dal kaw ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf Adja nga nuyul ma kilifa gi ak sa nattangoo yi nga nekkal foofu yëpp yal na yàlla barkeel liggéey bi longue vie à Rewmi à ses agents et à Rewmi avec grand R quoi jërëjëf <laughs> Abdou Khadre ñu ngi lay gërëm njiital la ñu doon dalal doon waxtaanee ngaañte gi jël wàllum waasoog xeet di ko utiliser ci politique mën a jural réew mi mais aussi euh, baax baax yi ci nekk te mag ñi defoon ci ay mbir yu rafet bokk na ci cousinage à plaisanterie mu nekk loo xam ni fay na ay taal yu baree bari gën a itam euh, boole nit ñi amoon nañu mbégte lool dalal ci Abdou Khadre di euh, xaritu réew mi consultant daanaka ci émission bi ndorteel la ba léegi ñuy ànd ak moom tey ñaan yàlla ànd bi gën a yàgg te gën a rafet ji ngi leen di gërëm yéen ñi doon déglu itam gërëm jaaw jàllo mi nekkoon si jàppandal gi bindeen euh, émission démb ak tey dimanche incha ñu dig ci daje di leen ñaanal kenn dal ak jàmm bi émission mun ngeen ko teeluwaat si réew mi officiel mooy suñu chaîne ci youtube Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi jàmm ak jàmm